te dëgg nañu kii investir la te liggéey na ci commune boobu liggéey bu am solo nañ dem ñu xool liggéey bi ñun ak chef de village yëpp ak conseil municipal yi ñu ànd foofu bi ñu demee foofu ñu gis ko ñu ne ah lii moom kii jar na yóbbu ci commune bi ñu waxtaan ñu ñëw def délibération moom mu toog moom ne ñëwut bi mu ñëwul nag ñu jëlaat suuf boobu léegi nag ci boobu ñeneen ñëw ñoom la ñu ne dañu investir ñu ne comme que suuf bi joxe nañu ko Prodac ñëwut joxe nañu ko business global moom la ñëwut ba tey dañu xool ñu joxaat ko ñeneen ñu xool ñoom ne day ñu ñëw yàlla dogal na am na ku ñëw am na ñu ñëwut léegi nag ñaari at bu ne man ku ñëwut damay jël te 15 octobre mooy ñaari at bi man gisatuma lu jar foofu coow. léegi nag ñeneen ñu ko wax. xaw ma fan la ñu jëlee information boobu comme comme bokkuñu si suma commune. population ñaan tukulóor ñoom xam nañu ni mu demee. kenn wumpe wut ko kana ku nekkul ci biir commune bi. man soo ma waxee affaire suuf soo waxee xaalis dootoo am. loolu moom am na ñi ko jéemoon ñoom joxuma leen.